bokk na ca sarte itam jur gañ boole doon benn façon maanaam nga xam ne daal daañu leen boole ci asaka waaye bu fekkoon dañoo boole kii amee ay gàtt kii amee ay gëléem te xam nga kenn du boole gàtt gëléem ci asaka su boobaa itam dañuy bàyyi kenn ku ne ber ak juróom ñu génne asakaam rek waaye di su ko jàppee di leen jaxase déedéet bu fekkoon ne nag kee daa amee xar kee amee béy moom loola mën naa nekk nga xam nga ne xar ak béy daañu leen boole ci asaka wala zakat it asaka xalaa man di war koo xam ne lam tabalux jotut xisatu wàllam addada zakat yi mu asaka maanaam ñaari njaxal seen jur nag bu fekkee kenn ka daa matale nisaab kenn ka matalewul nisaab xamal ne ka matalewul nisaab moom asaka waru ko bu yàlla dogalee kay laaj asaka ñëw jàpp ci moom it kam bokkal di ko remboursé rek delloo ko lépp lañ jël ci moom waaye mu asaka waru ko mel ne boo amoon ñeent fukki gàtt jaxaseeg koo xam ne moom léegi fanweer la am xam nga kon yow si ñeent fukk moom mat na nisaab waaye fanweer am matul nisaab kon moom am fanweer bu ñu jàppee ci moom itam waruñoo jàpp ci moom dara kon yow mi nga xam ne yaa mat li ñeent fukk yaa koy delloo gàtt boobu rek bu wér a wér wala yu farraqu déeful teqale bay na mujj tamit ci diggante aji booleeg jur wala yu jumaxu déeful boole it bay na mutafarriq ci diggante aji tàggoo ci jur wala aji tàqaleeg jur xasiyata sadaqati ngir ragal asaka wa dalika loolee isa qaruba mooy ndeem jege na alxawlu at na fa isa kaana ndeem nekk na yan ko si di wàññiku ada uhuma seenu joox distiraaq xima ci sababu seenu teqalikoo aw biccima xima wala sababu seenu dajaloo uxisaa kon jàppeef leen bi maa ci la nga xam ne kaana nekkoon nañu xale ci moom xable dalika ci njëkk loolee nee na ñoo xam ne ñoo boole woon seenu jur ba yàgg jël asaka yi bëgg a jot joxe asaka yi bëgg a jot ñu daal di bëgg a tàggoo mbaa ñu tàggoon ba yàgg joxe asaka yi bëgg a jot ñu bëgg a boole dañuy seet ba xam bu fekkee ne daal loola daw asaka tax ñu koy def ndax dañoo seet ne bu ñu tàggoo mbaa buñ boolee dana tax la ñu war a joxe manqué dana tax la ñu war a joxe néew moo tax ñu bëgg a def loola yoon du ko nangu bi nga xamee ni moom bu ñu teqalee mu amal leen njariñ mooy lu mel ne ñaari gaay yoo xam ne kenn ku ne am na cent un maanaam kenn ku ne am na téeméer rek benn am bu kenn ku ne amee cent un buñ ko boolee xam nga deux cent deux lay doon te ñetti gàtt moo ci wax loolu nag xam nga bu ñu demee ba joxe asaka yi bëgg a jot laaj ko asaka yi bëgg a ñëw ñu ne léegi nan tàggoo kenn ku ne dem ak sa cent un xam nga cent un moom bu dikkee benn rek la ñuy jàpp ci yow ndax cent vingt et un ci lañu door a jàpp deux waaye ndegam biñu boolee mat la woon nañ deux cent deux moom ñett moo ci waroon génn waaw léegi nag ñu ne nan tàggoo rek kenn ku ne dem ndax bañ ci àggee bay joxe kenn ku ne benn ngay joxe loolu yoon du ko nangu dañu jàpp ci ñoom ñett rek benn yoon bi nga xamee nag boole gi moo leen di amal njëriñ mooy lu mel ne ñett ñoo xam ne kenn ku ne am na quarante xam nga ñett ñoo xam ne kenn ku ne am na quarante buñ beroo bañ a ànd ku nekk da nga joxe benn suñ demee nag bu baat mi bëgg a dee ñu boole ko nag muy ñetti quarante lu muy doon cent vingt dong lay doon te cent vingt benn gàtt ci war xoolal loolu rek nga xam ne ñoom bu ñu beru xantee te lañ defoon ku ne war ngaa joxe benn ndax am kenn ku ne am na quarante suñ ko boolee nag léegi ñetti quarante yi cent vingt dong lay doon te su boobaa benn gàtt képp moo leen di war loolu kon buñ nee dañ koy boole te fekk at maa ngi bëgg a dee dee su ko nangu dañuy jàpp dañoo bëgg daw asaka rek moo tax ñu def noonu dañuy jàpp kenn ku ne joxe benn rek waaye duñ nangu ñu boole lépp muy cent vingt ñu joxe benn gàtt déedéet. wala tu xasu deful jàpp fi sadaqati ci azaka a saxlatu bortu waxoon nañ lam war a jël maanaam buñ ko nee nangam ngay jël wax nañ ko loola mu war a toll nga bu dee ci gàtt. te aajowoo am at kon nag danga bu dee gàtt lu mu néew néew am at kon du sañ a jël loo xam ne agul ci at lu agul ci at rek kon burtu la dina mu jël ko wattu xaddu te def na ko wàññiwaale xalaa rabbil ganami ci boroom gàtt ya tutee nag burtu yi daañu ko wàññiwaale ci boroom gàtt yi mel ne bu fekkoon ne daa amee ñaar fukki gàtt yu mag ak ñaar fukki mburtu te jàpp ko muy ñeent fukk jël ci benn muy asaka waaye bu ñuy jël duñ jël mburtu nag dañuy jël ci yu mag ya nga xam ne lu mu néew néew moom am at tolluwaay dundam mat at wala tuuxasa deful jàpp alxajaajilu sëllu ya fil baqari ca naya ko waxoon ne kon nag ba nga ca war a jàpp lu mu néew néew na am ñaari at lañ ko waxoon kon nag lu lu yées loolu rek su lu yées loolu rek aw sëllu la du ko sañ a jël moom mi joxe itam bu dee joxe asaka du sañ joxe aw sëllu déedéet fekki laajkat bàyyi laaj na jël wañ ko waxoon mu jël wu ko yees bu dee mooy joxe tey bakkanam itam na joxe way mat waaye bu mu joxe mu manqué wala fuslaan du caageenu ndurtu ye wala mboccoor ye fi ibli ci gëleem ye ba tey gëleem moom bintu maxaadu moo ci gën a néew tolluwaay dund ci lañ war a jël ci asaka ndax mooy gëleem bu jigéen ko am at ba dugg ci moom ñaareel kooku nag kon bu dee moom muy joxe bu dee moom mooy joxe asakaam ci tey bakkanam bu mu joxe wu yées woo bu dee kookaay laaj asaka itam yoon sant ko itam kon bu mu jël wu yées woo watu xaddu def na wàññiwaale yépp nag xaalihim ci borom jur ga sol yi nga waxoon ci nay ak mboccoo yi nga waxoon muy mburtu yi ci galeem yépp du tey ñu wàññiwaale ko ci borom jur gi nit nga xam ne bu amoon ñaar fukki nag yu mag ak fukki nag yu ndaw yu fukki sol yi nag du tey jàpp ko muy fanweer mu war a joxe wenn waaye bu dee joxe wenn woon wenn wa bu mu nekk sëllu maanaam lu yées ñaari at ba tey bu amoon ci ay gëleem ñaar fukk yu mag am juróomi mburtu gëléem du tey jàppee ko mu ñaar fukk juróom war a joxe bintu maxaab waaye du sañ a joxe nag lu yées bintu maxaab wala yu xasu deful jàpp tey suñ ab tef tef mooy mburtu bëy ba mu ne mburtu rek ca xar yóbbaale woon na bii mu toll nii boobu bëy ndax bëy moom lu mu néew néew bañ ci jox asaka war naa mat at wala xarimatun du caagéenu aji màggat ba tey moom mi joxe asaka bu mu seet bu màggat ba yooy mu di ko joxe asaka bu dee kay laaj asaka itam bu mu nangoo jël bu mel noonu walal maaxidu du caagéenu aji ëmb jë ba tey dañuy bañ moom mi nga xam ne mooy laaj asaka mu bëgg a forcer boroom jur ga ci jël ci moom bu ëmb ndax dañu bañ mu gaañ borom jur ga ndax bu jëlee bu ëmb day mel ne ku jël ñaar bu fekkee ne nag kay joxe asaka moo coobare wu joxe bu ëmb loola baax na wala faxlul xanami du caageenu kuyal gàtt ya loolu tam dañuy bañ a gaañ borom jur gi rek moo tax kuy la nga xam ne mooy ànd yu jigéen ya ba tax yokku mën ca am kenn du ko jël di ko yóbbu ci forcé bu ko coobaree woo joxe ko nag baax na waaye kenn du ko wax ne ko faaw dañuy jël sa kuy li nga xam ne mooy ànd yu jigéen wala chaatul xalafi du jaageenu gàttub yefal ba ba tey gàtt ba mu fonk di ko yefal ndax xam ne bii ku ko yefal mu baax mu fonk di ko yefal ba mu suur muy góor muy jigéen ñoo ci yemoo kenn du wax ne ko moom lañ yóbbu asaka déedéet bu ko neexee wut bu digg doomu rek bu ko coobaree woo joxe ko ngir yàlla nag baax na waaye kenn du ko force ne ko moom ngay joxe wala lëti di caagéenu ba nga xam ne turab bi dana yar wala daxaa doomam ja di sa jublu rek bay nàmpal bu jigéen ba nga xam ne mi ngi ànd doom doom ji férégut kenn du ko jël di fa bàyyi doom ja ñu koy bàyyi ak moom bu amul yeneen ñu wax ko bu si bu wuti rek bu jaadu bu dikk doomu waaye boobu kenn du ko yóbbu wala xiyaaru am waali naa si du caagéenu tànnee fi alali nit ña bu ne woon rek laa yu xasu xiyaaru am waali naa si wala shiraaru xaa rek mooy gën a gàtt daa bëgg a wax ne rek borom jur gi kenn du ko wax ne ko dañuy seet yi nga gën a baaxle ñu jël ko te doo ko sañ a bañ waaye moom du sañ a wax ne yu yemaay yee laay joxe du ngeen ko sañ a bañ déedéet seen naa seet yu digg doomu nag mu joxe ko bu ko neexee itam bëgg lu baax tax mu joxe tànneef ya loolaa gën waaye yu yemaay yee moom doo ko ci ne faaw moom laay joxe asaka déedéet kii jël tam asaka ma kii laaj si asaka du ko wax ne ko faaw man tam yi gën a baax laay taam te moom laay jël doo ko sañ a bañ déedéet moom daal mën na su amee ay tànneefi kese buuti yu digg doomu bu amee ay kees kese itam buuti yu digg doomu bu amee tànneef kese nag bu ko neexee joxe ci tànneef yi moom bu amee ay kees yi kese moom du sañ a joxe ci benn kees yooyee wala yu xasu defu jàpp fii daalika ci loolee xarbul marchandise wala saman du jàggeenu njëkk ndega moom jur la war a joxe asaka nag faaw day joxe ak jur rek waaye du joxe marchandise bu wecc ko wala ak njëkk mu di ko wecc maanaam mel ne bëgg a joxe aw ab rajo mbaa montor mbaa leneen mu wecc la war a joxe ci jur mbaa li mu bëgg a seet la jur koy jar ci wurus mbaa xaalis mu koy joxe déedéet kenn du ko nangu moom daal bu waree joxe asakay pepp asakay pepp lay joxe bu waree joxe asakay tàndarma noonu bu waree joxe asakay jur ba tey noonu rek aluñ nangu nag mu joxe marchandise mbaa njëgg ba di ko wecc déedéet fa in aji barahoo ndéem forcé na ko al musaddiqu aji laaj ji asaka xala ak ci zaman ci jàpp njëgg fil anhaami ci juri kër ya waxi riha ak lu bokkut ak ñoom ni ki xeeti pepp yi aji sa axoo mu doy ko insha allah ndéem soof na yàlla daa wax nag bu fekkee ne kay laaj asaka moo forcé kii joxe asaka ne ko man kat da may jox rek njëg gi ma yóbbu waaye du ma yóbbu jëmmi jur gi mbaa du ma yóbbu jëmmi pepp mbaa tàndarma ji xam nañ ko caa forcé moom mi joxe asaka ba tax mu joxe njëgg su boobaa nee na jàpp na ne kon jaanam wàcc na incha allah da caa mu wute bu rëy rëy nag moo tax mu boole ci incha allah wala yusxitu drotal adday nu bor zakata xabbin asakay pepp wala tamrin du caageen tàndarma wala machiyet du caageen ak jur wala wax na ko ci gannaaw maanaam koo xam ne am na pepp mu asaka war wala tàndarma wala ak jur asaka war ca faaw rek mu war a joxe asaka ja lu mu bari bari ay bor nga xam ne bu joxewoon lépp ay borom du mati du tee rek mu war a joxe asaka ba noppi nag ñu seet ne moom bu ñu ko waree joxaat asaka joxaat ko asaka waaye moom dañoo jàppoon ne booba pepp ak tàndarma ak jur moom fuqaraaw yi ak masaakin yi maanaam ñi war a laaj asaka daal mooy ñi ko war a lekk yooyu mooy seen sukkandikuwaay ku leen joxul jooju asaka daañu loro loolu moo tax nag lu waaye bari bari ay bor moom te amee pepp moo xam ne asaka war na ci war nga koo génne tàndarma noonu jur noonu wur sa xaalis nag boobu dañoo jàppoon ne ndool leen la nga xam ne soo yoree wur sa xaalis asaka war ca te fekk nga amee bor yoo xam ne soo fayee da ngay jeexal tàkk kon asaka wàcc na la su fekkee boo fayee bor yi daf lay des du mat nisaa it ba tey sa jaan wàcc na asaka du la war ci kaw nag nañ ko teqale woon ci gannaaw ndax mën naa am nga am yeneen marchandise yoo xam ne ak yeneen xeet yoo xam ne asaka waru ca te mën naa dem ca bor ya kon su boobaa bi seetee am nga yeneen yoo xam ne mën naa dem ca bor ya kon day aajoo nga def yooyee ca bor ya mbaa boo ko defut ñu jàpp na rek moom asaka war na la ci li nga war ci wurus sa xaalis baabu li ëbbantu la fi zakat li fitri ci muurum koor wa zakat li fitri muurum koor sunnatu sunna la waajibatun suñ suñ fedd mi faradaha sos dogal na ko rasulullah yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xalaa kulli kabirin ci mépp mag aw saxiin wala gone zakarin góor aw unsa wala jigéen xorrin góor aw xabdin wala ab jaam mel muslimin ci jullit ña saaxan benn saa lay doon an kul nafsin walis bépp bakkan bi saahi nabi saafu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñere murum koor yonante bi ci boppam moo ko dogal ci sunnaam farataal ko te itam ñëpp la ko sant góor jigéen mag ndaw góor jaam ñëpp rek dañ ko waraloon nga xam ne bu dee jaam dañ koy génneel waaye du tee ñu génneel ko ko moom nag tolluwaay mooy saa saa nag boo ko dee seet am ñu koy tolloole ñaari kilo am ñuy wax ñaari kilo ak nangam am ñuy wax sax ba ñetti kilo waaye daa mel daal ñaari kilo yi war naa diggu doomu ndax daa mel daal nañu waxee ne nit ay loxoom bu fekkee rëyut ba ëpp tuutiwul ba ëpp su ko defee ba mu fees yent yoon mooy doon saa bu ko defee benn yoon mooy nekk mudd bu ko defee yent yoon mooy nekk saa loolu nag boo ko dee seet daal mu war a ëpp ñaari kilo moom dana la jaaxal moo tax ñaari kilo daal mel na ne moom mees na koo jàppee saa nga xam ne boo koy génne boobu bu ne danga koy joxeel ñaari kilo xam ne bu dee yàgg sa soxna nga génne ñeenti kilo bu ci sa doom àndee ma juróom benn kilo nga topp ko noonu ñu wéy rek wattu addaa def na ko jox min julli xayshi ahli dalikal baladi ca la ëpp ca dundu ñooñ boobale dëkk min durin ci bele aw shahin wala lor aw sultin wala sult aw tamrin wala tàndarma aw aqitin wala fromage ñu koy wax fromage nag waaye moom mooy meewum pëndëx maanaam meew mu nekk sunguf aw zadidin wala reseñ aw duxin wala pepp mu ñuul leneen mooy suun ak saaño aw duratin wala mboq aw ursin wala ceeb daa wax nañu seet nag la foofu ëpp a dunde ci yii rek ñu génnee ca burum koor ma moo xam day bele moo xam day lorsu moo xam day sultu moo xam day tàndarma moo xam day soow moo xam ne mooy soowum pëndax maanaam mooy rek suufu su meew daal fekkee loolu lañ koy dunde foofa wala reseñ wala suuna ak saaño wala mboq mbaa ceeb lu ci ëpp dunde foofu rek ci la koy génnee bu dee suñu réew yi nag moom daa mel ne su fekkee jekk nga génne ko ci ceeb sooy boo génne ko ci ceeb mooy gën ndax daa mel ni moo ëpp daraja dugub te it mel ne sax moo ëpp luñ ko fi dundee teew nag koo xam génne nga dugub ngir tëlee ceeb moom du ko tee baax incha allah waxi la waxees na ne inkaana dem nekk na alxalasu xalas xoota xaw min di dudd aw nit uxrijat kon génneef ko min hu ca moom am nañu ne nag bu fekkee ne pepp mu xalas day pepp mu yemaay dana ko wax léegi bu fekkee ne ñooñu moom la ñu dunde ku yóbbu génne ko ci loolu war naa jaaru ndax bu yemaay itam waaye moom it moom lañu am ba di ko dunde dañ ne kon sañ nañ ko caa war a génne waxoo moom xalas nag xabbun am pepp la saxirun muy aji sew yaqrub moom dana jege min xilxat li duru ci bindu bele xalas nee na pepp la moo xam ne ci bindig moom daa mel ne bele waaye day sew ruuj moo tax bokkut ak bele waaye xurij dana génne an ab di walis jaam ba sayyiduhu sangam ba ab jaam moom ab sangam a ko war a génneel murum koor wa saxiru gone it laa maal dit alal loxo di ko ñeel yoo xurij dana génne an walis ko waaliduhu baayam ba tey gone bu fekkee amul alali boppam kon na ko baayam génneel bu fekkee am na alali boppam nag baay mën na ko génneel ci alali boppam ja waaye yoo xurij dana génne arrajulu waaja zakat fitri murum koor an kulli muslimin walis bépp julit tal sa muxu boobu dana ko war na faxatuxu dundam ba waxan mukaata bi ak walis ko muy jotoonteel jaam ba muy jotoonteel mooy jaam ba wax ne ko jox ma nangam tàggoreel la murum koor danga ko war a génneel sa bopp génneel ko képp koo xam ne yaa ko war a dundal ci yoon ñi nga war a dundal ci yoon nag mooy sa soxna yaa ko war a dundal sa doom ju góor ba keroog muy doon magam jëm mën a liggéey yor boppam yaa ko war a dundal sa doom bu jigéen ba keroog dañ koy may jëkkër ba jébal ko jëkkër ja yaa ko war a dundal sa ndey ak sa baay bu fekkee dañu amut te yow nga am ba tey kon yaa ñu war a dundal kon ñooñu yaa ñu war a génneel murum koor jamono yi jaam amee itam sab jaam yaa ko war a génneel murum koor doon sax da ngaa dem bay jotoog moom mooy nga ne ko léegi jox ma nangam te gore ba mu tàmbalee di la ko jox maanaam ban ba ngeen jubóo ci daal mu wéy ci loola koy dutee yaa ko war a joxeel murum koor mooy wa inkaan ak donte nekkoon na laa yun fiq du dundale xale yi ci moom boo xasee tàmbale jotoog moom day mel daa wéy ak boppam ci wet su boobaa doo ko jox dund waroo ko dundal waaye dutee nag murum koor yaa koy génneel lu tax mooy li àndoo ngir naka moom xam dun ak jaam lay doonaat la wëññeel ko baax du ci gannaaw bu lootee dañoo seet ne li nga ko wax ne ko boo ma ko joxee ma goreel la bu ko wutee wut ñu topp ko topp mënu ko am day wëlbati ku doon jaam bu sotti na mu ko doone woon ndegam nag bu ci tëlee doonaatub jaam bu sotti kon yaa ko war a génneel murum koor mi wa yustahabu def na sopp ixraajuha génne murum koor ma isa talax ndem fenk na alfajru fajar yow mi fitri ci bisub korite ba waxtuñ gën a taamu nga génne ci murum koor mooy buñ ne tey la korite daal boo xëyee bala ngaa julli ji nga génne ko joxe mu daal lañ gën a taamu boo yeexee ba julli ji ba ñëw nag na nga farlu ci génne ko balaa jant bee sox ndax bu jant bi soyee te génne woo ko ngay am bàkkaar ci yeexe ga te du tee mu war la ba tey wa yustahabu def na sopp alfitru dog fii ci moom bisub korite xamal xudu ci njëkk xëy ga ilal musalla jëm ci jullikaay ba daa wax nag buñ ne tey la korite moom sopp nañu boo xëyee wala ngaa dem ci jullikaay ba nga am loo lekk ba wane ne ba la diggalee nga woor woor nga bi la diggalee wari wari nga dañ ci gën a taamu nag mooy nga def ko tàndarma tam tóol boole ci bu fekkee amoo tàndarma nag kon nga lekk leneen rek wala sa daalika déet loolee nag fil adha muy nekk tabaski tabaski nag moom bëgguñu nga xëy lekk dara dañoo bëgg rek boo xëyee mel na ku woor bàyyi ba julli ji ba ñëw bañ ren di tabaski ma nga dogee ca tabaski ma loolu daal lañ gën a taamu bu dee ci tabaski moom wa yustahabu def na sopp fi nga ay day ni si yaari xiit yi an yam di yamu wéy min tarixin ci aw yoon waaye jeexate muy delloo min uxraa ci weneen da ko baam waaye waxal na ko sopp nañ booy dem di julli ji korite mbaa tabaski yoon nga awoon di dem booy wàññiku nga aw ci weneen bala noo génn asaka nu xam le ne su fekkee ne kooka ba muy faatu daa fekk génne asaka ga jot na kon dañuy génne asaka ja ba noppi door a miraas bu ko defee buñ séddalee lu waay am rek yóbbu fekk asaka ji génn na ba noppi loolu mooy bu dee wurus ak xaalis bu dee mbay wala jur ci jamono ji nga xam ne amul kuy laaj si asaka jur léegi ba tey benn la ndegam moom fekk na waxtu génne asaka ga jot dañu daal di génne asaka ji ba noppi nag door a miraas loolee di mbay ma wala loolee di jur ga su fekkee ne nag kooka daa faatu te fekk mbay ma asaka waragu ca kon dañuy bàyyi rek ba mu ñor bu ñoree ñu séddale ña koy doon koo ci xam ne am nga lu mat nisaab mbaa am nga leneen loo ko booleel ci xeetu mbay boo xam ne soo ko boolee mat nisaab asaka war la koo xam la nga am nag moom matul nisaab te amul loo ko booleel asaka du la war ba tey bu dee jur ga itam te ba koo koy faatu génne ko asaka waragut dañuy miraas rek koo xam ne am nga sawàll nag ñu seet ba xam fekkan na nga amul juróom déet bu fekkee ab fekkan na nga amul jur da nga koy booleeg googa te su fekkee googee nga amoon matoon na nisaab atum googa nga amoon ngay topp su at ma agsee rek nga boole loola ak li nga doon yépp rek daal di koy asakaal bu fekkee nag boo boolee li nga am ci dono bi ak jur nga amoon du mat nisaab kon dara waru la saa yu demee mat nisaab rek nag bis boobee mate nisaab na nga ko jàpp ba mu des ci déwén sa muy sam at asaka dal lay wax la borom sara bi wax naa wa minha law maata shaxsun qabla ixraajiha wa ba'da wujubiha fa in kaanat xarsan aw maashiyatan la saa'iya laha uxidat min ra'sil maali kal ayni in i'tarafa bi xululiha wa awsaa bi ixraajiha wa amma law maata al maaliku qabla al wujubi fa fi l xarsi yuzakkiha al waarisu in xaraja lahu nisaabun aw kaana indahu zarhun aaxaru يخرج منهما نصاب وأما في الماشية فإن كان عند الوارث نصاب ضمها إليه وزكى عند تمام الحول ولو قرب من الموت وأما لو كان لا شيء عنده سواها أو كان عنده أقل من نصاب لاستقبل حولا كاملا من يوم كمال النصاب أو ملكه وأما لو كان المال عينا ومات مالكه قبل مرور الحول لا استقبل الوارث به ولا يضمه لما عنده من النساب لأن فائدة العين يستقبل بها daa wax ne bu fekkoon ne loolu day wuru sa xaalis boo xam ne ba boroom di faatu fekkutoon waxtu asakaal wa jot kon dañuy seetlu rek noonu te lu jawaay am itam lu ci waay am danga koy jëmale at rek nga xam ne daal bis bañ miraasee bu dee see déwén sa fekk nga yoreel mat nisaab rek asaka war la bu ko matut asaka du la war baabun li ab bunt la fil xaj ci aj wala umrati ak umra day bëgg a dugg nag ci aj ak umra wa xajju baytillaahi aj néegi yàlla ba alxaraami ba di buñ ormaal allazi ba nga xam ne di bakkata nekk na ci màkka bakkata binde ko baa ak makkata binde ko miim ñooyam rekk bakkata benn la faridatun farata la xalaa kulli man war képp koo xam ne istataaxa attan na ila daalika jëm ci loolee sabilan aw yoon minal muslimina ci jullit ña al ahraari ña di ay gor al baalixiina ña di way kàllafe marratan wenn yoon fi umri yi ca dundam ga aj màkk la wax ne farata la ci ku ko man bokk na ci ponk lislaam yi képp koo xam ne jullit nga te gor nga te kàllaf nga te man ko boole ci rek mu daldi lay war koo xam ne nag jaam la ci jamono bu ko defee dana wér waaye du tee bis bu goree rek war ko defaat ndax def mu njëkk ga fekkutoon mu war ko ba tey gone bu ajee aj ga dana wér waaye nag du tee bu doonee mu kàllaf war koo defaat ndax aj gu njëkk ga du woon farata ca moom bu ñu nee nag ku mën rek la war waaye koo xam ne mënoo ko wàcc na la lan mooy man nga lay bëgg a wax mu ne wa sabilu sabil jooje yàlla ne walillahi ala nnaasi hajjul bayti man istataa ilayhi sabilan wa sabilu sabil jooje day at tariqu mooy yoon wa assaabilatu wa di wuñ wóolu wa zaadu ak yóbbal ba al muballixu bay aji àggale ila màkkata jëm màkka wal quwatu ak àttan ga xalal wusooli ci àgg ga ila màkkata jëm màkka imma raakiban benn muy aji war aw raajilan wala muy aji leeru leeru mooy doxog tànk maha sixatil badani ànd ak wérug yaram ba ñu nekk man yoon wa mooy koo xam ne ñeent sart yi daje na ca ba ci njëkk mooy fa muy aw muy yoon wa am nañ ca wóolu ba nga xamee ne ragalu ca bakkanam des ca mbaa alalam des ca muy benn ñaareel bi mooy mu am yóbbal bu ko mën a yóbbu ba màkka waaye su fekkee amul yóbbal rek ki biñ dee paas amul paas mbaa amul yóbbal ba muy xewloo ci yoon yi mbaa foofa ba tey kon mënu ko jaanam wàcc na ba keram mu koy man ñetteel bi mooy mu mën a àgg màkka moo xam day dox moo xam day war bu fekkoon daa gumba te amul ku ko mat kooku mënta àgg màkka waaw bu fekkee na gumba gi am na ku ko womat te it mën naa dem te du ca am coono bu ëpp bu jéggi dayoo kon moom gumba ga du tee aji màkka ga war ko ba ko ñeenteel ci nim ko tegalee nag mooy lim ne maxa sixatil badani ànd ak wéru yaram na amee yaram bu wér bu fekkee dafa tawat ci boo toppee ni mu waxee doonte am na lu mu warit am na lu mu war ba àgg itam du tax aj màkka war ko kon daal li taxaman mooy yoon wa ngay aw ba dem am na sécurité mooy ragaloo ca sa bakkan des ci mbaa sa alal muy benn ñaareel ba mooy nga am yóbbul bu la yóbbu màkk niki buñ dee paas ak la ngay xéewloo ci yoon week foofu yépp nga am ko ñetteel ba mooy nga mën a àgg nga am kàttanug dem ba àgg ndax dañ cee génne woon gumba gi nga xam ne amul kenn ku ko womat kooku mënta àgg màkka mel na ne ndax ngu bëgg amul ku ko womat lu mu ci mën doon daal moom moo xam day war moo xam day doxoog tànk moom na mën a àgg rek ba màkk waaye su mënta àgg moom ni ki gumba googu aj ga wàcc na ko ba ko ñeenteel nag mooy na nekk ko am wéru yaram su tawatee tawat joo xam ne mënta dem kon ba tey jaanam wàcc na wa innama yu umaru naka def na ko digal an yuxrima mu armale minal miiqaati ci miiqa maanaam nag dafa am jamono ju ñu war a armale ak béréb bu ñu war a armale jamono ji waxu ko waaye mooy shawwal dul qixda dul hijja maanaam weeru korite ak weeru diggu tabaski ak weeru tabaski wa am nañu ne weeru tabaski wa lépp lépp la ba keram muy dee am nañu ne ma nga yem ci fukki fan yu njëkk yi rek loolu mooy jamono ji ñu armale nga xam ne soo armaloon njëkk weeru korite armal ga dana wér waaye des na ko sib béréb ba ñuy armale nag moom man ngaa takk ne koo xam ne waxtu ngay armal daa fekk nga nekk biir màkka moo xam da nga faa dëkk moo xam daa fekkan rek nga nekk fa waaye dëkkoo fa kon boo dee armalal aj gu bokk te xiraan du aajo ngay génn kon foofe nga nekk ci biir màkk rek foofa ngay armale daañu sopp na nga dem ba ci biir jàkka ji rek waaye foo armale ci biir màkk mu baax boo bëggee armalal xumra nag wala aju xiraan nag di aajo nga génn ba ca xelli ja mooy nga génn li xorom ji ndax armal boo gis daa war a boole xell ak xorom kon nag boo dee armalal xumra mbaa ngay armalal aju xiraan moom dana aajowoo la ngay nekk nekk biir màkk nga génn xorum ja ba ca xelli ja doora armal bu dee koo xam ne nekkutoon biir màkk nag moom moom lay bëgg a wax ndax béréb bu ne fooy bàyyi ko ci goxi àdduna bi daa am foo xam ne fa la ñu la digal nga armale foofa wa miqaatu ahli shaami mi xam ñoñ shaam koy wax siri wa misra ak misra wal maghribi ak soowu maghrib day firi Maroc léeg-léeg waaye fi soowu rek la ci jublu Maroc ak Mauritanie ak Sénégal ak mboolem féeti soowu yépp rek tugg nañ foofu al juhfatu mooy juhfa ku bàyyi ko ci gox yooyu daal boo agsee fa ñuy wax al juhfatu fa ngay armale ñoom nag bu ñu jaaree Madina day fekk ba tey seen armalawukaay nekk ca kanam la gën mooy ñu bokk ak waa Madina benn armalawukaay waaye teewul nag bu leen neexee jéggi armalawukaayu Madina jàll ba ca seen armalawukaay moo tax mu naa fa in marroo ndem romb nañu bil madinati ci madina fal afdalu la gën lahum ñeel leen an yuxrimoo mooy ñu armale min miqaati ahliha ci miixam ñoñ